Abo Wade fii la ko fii la ko wax da koy koc maam jaara naan day koc Abo Wade maam jaara nekk sa fan rek nga bëgg a koc jëkkëram loolu tamit loolu loolu violation la. déet ko ma jëkkëram de. <laughs> nga ne ko di nga ko koc ci yoonu Touba bi mu woo ma naa ma mais booy bu ma kojee man fu ma jëm. <laughs> ma koju ma la ma lay tooñ rek. Ah. mais damay xaar ci bopp koñ bi nag. oui jaar naa la. waaw ñu ngi lay dolli bégg kay de. mais tey ngeen indi seen seen hmm. a bëreeg xale Gris 2 mu bëre war a Abdou Diouf lay ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. waaw. xale moom gëj na ci làmb ji. ba ci lan loolu dara nekku si. Gris 2 nee na amut lu muy maslaa lu moom la day ñëw jël moo féete xale. waaw baax na bar bi dina pip na dem jëli ko. du ngeen waaja pare nañ leen rek moo ñu dese fu ne ñaan yàlla fu ñu borom yàlla may ñu ndam comme ni ñu ko mayee woon dimanche bu la yàlla ñu yàlla suturaal tey may ko Abdou Diouf may ko Mathia sama raq. mais yow foo ne ginnaaw ñoom. maa ngi fi de ma fenn puusuma paasuma maa ngi fi di xaar carte gi ci kaw toj. fële carte gi fële ci kaw ne la. non carte googu la nit ñi jaax jaaxle ndax li jaaxal amateur yëpp mooy ñëpp am combat amoo. waaw mais c'est normal. ñu ne avance yaa ngi ñëw yaa koy delloo li tax loolu. sa fan si bëgg nga bëri. non non la dëgg delloogul avancé la dëgg daal leen lay def. moo ngi ci ruqam su ma doon entraîné a 1000 pour cent léegi wàññi naa ko ba 5 pour la lay entraîné ba 5 pour cent pour gars yi ne mën a dugg quoi bu ñu duggee rek baax na. dama yaakaar ne entraînement yi tax gars yi ñëw. waaw loolu la xam nga entraînement dof lay mooy problème bi gars bu ñu la xoolee mooy loolu mais ndànk-ndànk rek. dégg naa ñu ngi lay dox sa digg ak Gris Bordeaux nga bañ. kan ban maa bëriwul ak Gris tapet la. tapet bu mag la du dara. Gris Bordeaux. tapet la. Gris Bordeaux euh, ma bëgg a bëreeg moom est que deful 30 ans sax. waaw topp nga ko de naan ko suñu ministre costume yi ñu bëree nangam nangam. waaw tey nag comme bëggul bëre nag bàyyi ko mu dem seeti leneen. non moom kii. saa waay la daguerre 2. képp ku ko soxla. daa fekk lekk goo avance bés boo lekk avance am say mbokk duñ nelaw. doo jël ko doo jël avance. avance nga bëgguma ko bu ma bëgg bëgguma tapet kay lu ma koy dee. est-ce que ko jël corriger ko ñu xam ne tapet la. waaw yow ko tapet boo corriger dañu la dëgër waxoon na ko nañu xooli leneen ay dafa loo xam ne vision boo xam nit ki bu ko amee da koy buux foofu noonu mais buñ ko buux ci mbëru tapet yi. vision boo am. vision roi des arènes loolu mooy sama objectif fu mu ne nii. mais roi des arènes ñi koy bëre kenn. bëri ko. nekk ci kaw doo bëri morom yëpp ko. mais ki ne kaw doo kenn ki doo bëri ko. kooka la ci. ama. non ama bëriwul. ah bëriwul ak ama. waaw xanaa Ama rek moo fi ne man bëriwuma ak Ama Ama dafa am lu ñu liyee ma moom te loolu dama koy sàmm xam nga góor góor rek la mën a doon papam sama waajur la moom moo taxaw ne ma dund ma dee bés bu Ama bëree yow leen ko baal kon nag wax ko dama koy sàmm Ama nag bés bu taxaw ne damay bëreeg la déggee nag mënutuma ci dara mais man bëriwuma ak Ama xanaa dinañ dem seeti leneen nag.